rappeler rek que monsieur le ministre. Mm-hmm. Ablaye Dia Sénico. Mm-hmm. ni ko nit ñi décrier. Mm-hmm. ni ko nit ñi xam ne de par sa sociabilité et sa serviabilité. tu peux utiliser ta fibre. en tant que ministre et fibre sociale. ce qui est boo ñëwee ak les familles qui sont là-bas waxtaan parce que ñàkk bañ a xamal xam la bu ñu waxtaan ak moom ce qui est et certain. mooy ils vont trouver une solution dimbali ñooñu ñu ñu dëkk fi ñi fi ñi ni ne. moom lañu moom lañu nañu yàlla yàlla defal ñu ba ñu mën a egg ci solution bi. alors ñu dem ci cantinisation bi euh, après ñu jàll ci euh, programme zéro déchet parce que temps baa ngi dem temps baa ngi dem te euh, justement il nous reste des points à évacuer. nañ ko may nañ ko may. Namora vas-y vas-y Omar. allez-y répondez juste sur la cantinisation après on le ko bi man dem naa ba visiter ko. parce que quand même bu may def sama liggéey lu ñu may wax rek damay dem seet ko ba xam ndax dëgg la wala du dëgg. c'est vrai am na situation gis naa canal boo xam ne tabax nañ ci lu yàgg la nag du jamono ji ma nekkee ministre parce que loolu du ma ko autoriser man mais. comme am na te defe naa jamono yooyu su ma juumul est-ce que du commune yi sax ñoo doon autorisation seen bopp. waaw waaw mais li am mooy tey Euh, les canaux à ciel ouvert de Rufisque ak yeneen ak yeneen pro Promoville mi ngi fay waaj a ñëw boulevard Maurice Gueye am fa projet bu am solo boo xam ne loolu yëpp dinañ ci liggéeyaat mais dafa am loo xam ne tamit yéen a élire seen ay maire bu amee problème da ngeen war a mën a toog waxtaan xam nga Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko perdre c'est le sens du dialogue lu am ñu daw ci rajo bi yuuxu sosalante waxante te mënoon nañ toog waxtaan li nga wax sànq rek peut-être problème mu Sénico bu ñu toogoon waxtaan xam naa ne mën na am coow li du si fii mais am na foo xam ne boo fa acculé nit sosal ko nit ki wan la boppam tamit peut-être loolu rek am <laughs> te ngi noonu. alors na mu raad très mooy problème mooy mhm. boo boo demandé pour voir un ministre ou devant rajo yi ba mu coow. duñu la recevoir loolu aussi na ko gars yi réglé. alors NA. Nabil. MO mhm. bi mooy Mouhamed. Mhm. RA mooy Rasoul. di escroquer. <laughs> c'est inac c'est inacceptable. solo NA bi mooy Nabil. MO mooy Mouhamed. RA bi mooy Rasoul. ñu tuddee ko Namora. Ah, N bi naanite M bi. des milliers et c'est exactement des milliers de personnes yoo xamante ni dañ ci waroon am kër. Mhm. amuñu si kër ça il faut criminaliser ça il est temps qu'on criminalise criminalise criminaliser <laughs> comment dire l'escroquerie foncière parce que toll na ci à un niveau dans ce pays là boo xamante ni ne. Mhm. nee na tey boo ñëwoon Rufisque vers Rufisque 2. après sédiment. Mm. mais da ngay gis boo xamante ni titre foncier état dagg ko ay ay boo mais mais di ko joxe ay nit. Mm-hmm. te kenn du ci mën dara indi ay problème. d'accord très bien alors euh, programme zéro déchet tey jii lañ ci toll. programme zéro déchet mi ngi avancé mu ngi avancé bu baax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax mais liñ ciy njëkk a noté mooy mobilisation bi ci sénégalais yi gis nga président moo ko lancé boppam parce que ñun. dañuy tukki di dem fu ne mais bu ñëwee nañu ah Kigali ni mu mel Casablanca ni mu mel nangam nangam donc njiit dangay am ambition pour sa réew. parce que àdduna du du li lekk li ngay naan li ngay sol sa fierté daf cee bokk donc li nga xam ne moom le président def mooy initier li nga xamante ne mooy amélioration cadre de vie fexe population yi di impliqué wu ci seen setaay mais am na leneen lu gën a am solo loo xamante ne ñu ngi koy def te peut-être communiqué guñ ci mooy euh, li nga xam ne mooy Promojet programme de modernisation de la gestion et de l'économie des déchets Sénégal depuis 1960 xam nga mbalit lan lañ ci xam nee ne tibb dajale yóbbu décharge Sénégal suñu décharge à ciel ouvert yi mbëbës gis nga ni mu mel. ak feneen ak feneen. barrière yi ñuy jël euh, peinture couvert. Euh, non no non xaar eggaguma foofu eggaguma je te <laughs> parle d'abord du système de gestion des déchets donc ñu ne déchets au lieu que ñuy def collecte décharge léegi ñu dem ci lenn lu am solo mooy collecte euh, tri. valorisation donc tey jii état du Sénégal banque mondiale jox na ko financement cent vingt cinq millions de dollars agence française de développement jox na ko cinquante millions de dollars agence de coopération espagnole jox na ko cinquante millions de dollars keneen ki ci topp defe naa mooy banque européenne d' ñi ngi xaar mën na am dinañ joxe cent cinquante millions de dollars. de cinquante millions de dollars donc ça fait deux cent quatre vingt dix millions de dollars yoo xam ne bu ko dajalee xam la lañ ci war a def d' abord réhabiliter nos mbëbës. cent quatorze hectares la nen ne xam nga lan lañ ci war a def réduire ko ba mu yem trente hectares ñu végétaliser ko def ko ay montagnes def ko ay gazon def ko parc trente hectares yi ñu def fa des usines qui nu permettent de valoriser nos déchets danañ ko def Mamatoro Ziguinchor danañ ko def la route de Diendé fële ca Sédhiou gis nga ma fan yële ma dem Sédhiou danañ ko def Saint-Louis à Gandon danañ ko def fii ci booru Sali Mbour euh, fi ñuy wax euh, gàndigal donc dañu bëgg. maa fàtte wala leen parce que. Euh, Kaolack am na ba pare parce que ah. avant loolu avant ñun ñuy ñëw fekk nañ PGDSU defar li nga xamante ne moom mooy CIVD de Kaolack sant intégré de valorisation des déchets boo demee moom moo war a jël Kaffrine jël Kaolack jël Fatick mbalit yi ñu am yëpp dañ koy fay indi segg ko am na ci loo xam ne mën na doon gaz am na loo xam ne mën nañ ko recycler nit ñi di liggéey di ci am seen koom-koom donc programme zéro déchet alhamdulilah mi ngi dox financement yi ñuy xaar am nañ décision yi fii ak fin d'année dinañ lancer premier travaux yi nga xamante ne moom mooy euh, li war a dem euh, mbëbës lancer appel d'offres yeeg yooyu bu ko defee ni ñu defaree BRT ni ñu defee TER ñu def ko moo xam naa ñeen yi dinañ ñëw ne wëy dañu demati importer sax ñuy defar seen mbalit yi wala nangam nangam Sénégal dafa war a dox Sénégal dañu war a am ay investissement structurant ñu avancé. alors monsieur le ministre dafa amoon euh, quelque temps ci ginnaaw ñu gis euh, cleaning day. bu suscité mhm. woon tamit euh, réaction yu bëri cleaning day boobu fan la toll exactement. waaw soxna si gis nga li xew tamit Covid la. mënuñu ne mesure de barrière mënuñu ne nangam ñuy xëy di dajale nit ñi par contre gis nga ne conseil des ministres bi passé président woote waat na pour ñu waajalaat ko di fexe quartier yi sànq laaj nga ma nee na nga ndax mbaar yu vert yooyu loolu la ñuy wax PRN point de regroupement normalisé. dañu war a innovant suñu batiment bu màggetee ñu wut solution de financement mais suñuy mbalit bu ñu demee ba gis ne Sénégal foo romb rek ay zone de dépôt sauvage la ñëw fekk ñu dajale ay mbalit sànni ko ci buntu fii buntu fële mais ñu wut solution ñun yàlla def na ay ndaw lañ ñi ngi xalaat ñi ngi tukki di gis li xew bitim réew mais ne ne ñu gis li xew yeneen dëkk ñu ñëw ne dañuy defar ay zone yoo xamante ne génne ay bac ordu ordures nit ñi xam la lañ daan wax Sénégal boo tegee bac mbedd mi dañ koy sàcc waa UCG góorlu ànd ak ay jigéen ay góor xalaat ci équipe bi ñu mobiliser leen utal leen DG bu baax boo xam ne dafa jóge dans le secteur privé noonu la ñuy defaree administration andi Mass mu liggéey ànd ak ay serviram service am ñu innovant tey foo dem ñu ngi teg presque quatre-vingts PRN def nañ ko Touba dinañ ko def Kaolack dinañ ko def Tivaouane dinañ ko def Saint-Louis dinañ ko def Thiès bu ko defee Sénégal xar kanam bi changé nànk-nànk loolu moom mooy ambition bi alors ñu dem un peu euh, par rapport à l'actualité il y a également la sortie du député euh, Alioune Dembourou Sow euh, ñu bëri jàpp que peut-être tey jii monsieur le ministre da nga doon jéem a expliquer un peu les pro les propos de Alioune Dembourou Sow ñu gis ne que tamit APR génnee na Benno Bokk Yaakaar génnee na benn communiqué Euh, buy wax ne que peut-être dañuy ñaawlu lii di propos wu Alioune Dembo Sow alors comment vous avez pu comment expliqué justement ces propos là alors loolu moom defe naa ne euh, lu lu doy waar la parce que vraiment euh, d'abord may ñaawlu violence fu mu mënti jógee politique ñun dañ ko donn wax naa ko Cheikh Oumar Tall peut-être beneen parti la bokk. ku ci ne am na non waaw bokk benn parti benn parti laa bokk léegi Sénégal. ñun waa Sénégal parti bi ñu bokk Sénégal dafa am lu ñu donn mooy politique bugguñu ci violence gis nañ dëkk yi mu am bugguma tudd ay dëkk ñun suñu li ñu ñëkk a nawee mooy suñu suñu stabilité suñu jàmm suñu teraanga donc loolu dañ ko war a sàmm warul am ci politique moo tax débat bi dafa war a civiliser donc euh, Aliou Dembourou Sow ñu am kàddu yu ñu wax ne moo ko wax man wax dëgg dégluwuma ko euh, man dama dem ci émission RFM matin 7 quarante dégg naa rek ñu ne wax na dara journaliste posé ma question bi man Euh, attewu ma wax yi parce que dégguma ko dama wax li ma xam ci Aliou Dembourou Sow xam nga nga ñëw ne Néné Aïcha moom kat euh, pes na fi benn xale ma ne la ah Néné Aïcha mi ma xam de ak mbaaxam ak yaram ak teeyam est-ce que daf ko pes est-ce que li nga gis pes la loolu laa wax dama ne Aliou Dembourou Sow mi ma xam nit ku teey la nit ku baax la nit ku équilibré la est-ce que li ngeen wax moo ko wax ñu ne waaw moom kay dafa ne dafa jël ay nañ jël jaas yi nangam nangam ma ne leen déet wolof la làkk wala alpulaar ñu ne ma alpulaar ma ne man dégguma pulaar est-ce que <laughs> du du du baat bu ñu mal interprété wala bu ñu adapté ñu ne ma non non nii la ko waxee ñëpp ne man dama koy soutenir man du ma soutenir violence président Macky Sall sax bu jëloon ay jaas ne nañ dem dem cor yi nit ñi man duma ko def parce que xaw ma loolu nàmp ma ko par contre samay mbokk yu bëri ak samay xarit yu bari woo nañ ma ah noo mënee wax lii ma leen déet waxuma loolu dañu interprété xam nga Sénégal c'est le dictat naan ah, ñu ne ah prime la wax donc bu fekkee choqué na ay nit bu fekkee choqué na nit ñi wala am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne man wax ji dafa ëpp vraiment maa ngi ci tuub parce que nit warul rëy. Mhm. bu ma bu ma jàppee ne am naa dëgg. mais ma dajeeg Umar Cheikh Umar dajeeg. man merewoon naa leen parce que dajeeg yow dajeeg Cheikh Umar culturellement ñu ne ma Karim da nga juum kon war naa jàpp ne quelque part juum naa donc maa ngi ciy tuub di ci jéggalu sénégalais yi. leneen li nag non condamne je propos je condamne la violence en politique violence dafa yàgg ci politique dama lay jox rek quelques histoires nekkuma di accabler mais damay fàttali rek 99 xaw ma 2000 Oumar Faye xam naa ko war am archive la ci politique élection bi ñu jëmee PS bi Ablaye Wade di gagné xalifa Sall lan la waxoon nañu jënd ay mbolde am na ñu ne sax gourdin yi livré nañ ko maison du parti te pourtant c'est des propos choquants mais teewul sénégalais yi dañuy jéggale xam ne erreur la dérive langagière dafa yàgg ci politique président Ablaye Wade xoolal ni mu baaxee xoolal li mu defee Sénégal te pourtant daaw xaw ma daan na fi wax naan ku leen dóor nangam ngeen jël ay ceen dóor ko waa xaara waa xam naa moo damay fàttali rek ne waxuma ne dañ def lu bon non Khalifa Sall nit ku baax la ku gis li mu def Dakar. Mhm. président Ablaye Wade kenn mënul natable mbaaxam foo foo ko takk weesu na ko ñëpp lay wax mais dama la bëgg wax ne nit loo baax baax. wax asaka mën na cee génn. c'est que monsieur le ministre dérive yooyu yàgg na am mais dañoo dem ba suñu biir ay propos si biir propos politiciens yi ñu ciy gis euh, quand même benn euh, benn langage wala benn yenn commentaire ethniciste peut-être loolu moo am benn précédent bu dangereux par rapport ak loolu moo graaw même réseau même WhatsApp dañuy yónnante ay messages ñii di xas ñii di loolu dañ ko war a éviter xam nga lu tax parce que on est une nation suñu nation bi yàlla def na. am ay nit yoo xam ne ci ñoom lañ ko doon ñoom sàmm nañ ko ba vraiment violence fexe nañ ba mu wàññeeku te violence nag ci kàddu lay tàmbalee. ci kàddu lay tàmbalee nit mën na wax lii ëllëg mu jur leneen nit mën na wax nii nga gisee ko nit day njott yenn saa nga ne Umar Umar ne waa mais gis nga ministre bi mu wax man daf may jaay ne ministre la man it mu wax ma ne mais Umar respecté ma xanaa xamul ne man ministre laa xam nga li ma la wax. donc loolu yëpp ay la te loolu attitude moo koy yan war a moo tax chaque fois dans le débat public ma koy wax. sosalante bi yaa def lii maa def lii mais mën nañ wax partager ay idées xam nga plateau bi lan moom fi neex proposé wax nañ ma fi ay sujets yoo xam ne leeral naa ci sénégalais yi wax naa leen hygiène publique fan la jëm wax naa leen logement yi wax naa leen terme sud te pourtant dépassé wu dépassante wuñ y a de violence def nañ na on naa croiser le fer mais ay sénégalais lañ dañ war a jëriñ waxtaan politique niñ ko donnee ñu jox ñu ko sans violence noonu lañ ko war a jëbalee ëllëg suñuy doom ak suñuy rak sans léegi nag dafa am lu may wax tudd naa fi léegi xalifa Sall nit ku baax la wax na fi wax yooyu teewul sénégalais yi jéggal nañ ko bon élire ko ville de Dakar mu nekk maire Ablaye Wade président wax na fi loolu wax na fi ay wax yu gën a garaaw nit ñi fàtte nañ loolu jéggal ko te xam ne nit ku baax la. président Macky Sall également Ousmane Sonko même chose wax na fi ay wax yu demee noonu même chose nit ñi fàtte ko ba di ko votel ba muy am 15 pour cent donc Aliou Dumburu mi. président Macky Sall également Aliou Dumburu nañ ko jéggal te xam ne erreur la faute la tuub na parti bi mu bokk. Euh, def na communiqué assemblée nationale def na communiqué man mii sax ñuy jiiñ ne dama koy soutenir tuub naa te yàlla xam na ne soutenir moo ko dama seede rek li ma xam ci moom man it tuub naa. jërëjëf ko ci plateau euh, Ndoumbelane en tout cas alors euh, Pape Makhtar mhm. justement qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces propos de Alioune Dembourou Sow ak posture assemblée nationale. waaw posture bi daf ñuy xaw a jaaxal parce que fan yi paase rek. ba Moustapha Cissé Lo génnee def wala ba ñu génnee audio Moustapha Cissé Lo président assemblée nationale dafa defoon communiqué di ñaawlu propos yooyu te kii di député defu ko donc quelque part dañuy wane que dafa am ñoo xamante ni ci nation bi dañuy mériter notre pardon notre compassion mais ñeneen ñi dañ leen war a sanctionner Assane la moo ko tëj ci kaso bi délit d'opinion la moo dugaloon Abdou Karim Gueye délit d'opinion ba Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen donc ñoom ñëpp kenn du leen pardonné bu ñu defee erreur bu ñu leen nangulee ñoom dañu am ay écart de langage ñoom kenn du leen pardonné yoon mooy dal seen kaw mais bu nekkee da nga jox carte membre APR wala Benno Bokk Yaakaar yow mën nga def lu la neex te dara du la ci fekk. lan nga doon xaar par rapport euh, euh, parce que nit mënul taxaw tey ji di def li nga xamante ni mooy euh, di inciter nit ñi à la violence non seulement loolu mi ngi ci mais di defaale apologie du parce que ku nii nañu jël jaasi dóor ñi nga xamante ni dañuy wax waxu troisième mandat te dara fekk ko si te yàlla xam na ni boo ni woon nañ jël jaasi dóor ci ki nga xamante ne mooy Macky nga koy wax doo ko yeggale fii nañ lay fekk Assane Diouf pour moins que ça il est en prison il n'a pas encore été jugé euh, Abdou Karim Gueye pour moins que ça des mois donc dañu ni bu nekkee dañu nekk ci dëkk boo xamante ni boo waxee dara lu safaanoo ak président bi wala lu war ak intérêt président bi ak kuuram ñun la woy da ngay def outrage au président mais askan bi bu ñu leen di saaga wala bu ñu leen di wax dara ñu koy bëgg résumé ci ay écart de langage wala ay sub ay ay ay mbir yoo xamante di ko trouver l'excuse maintenant nee na ñaar bi rek laa bëgg wax ci euh, euh, zéro déchet boobu ñuy wax tant que ñu ngi jël ay mbalit di ko jël mbalit maanaam jël mbalit bi fii ci Ndakaaru yóbbu ko euh, fële ca Mbëbës taalaat ko mais defuñu dara parce que mbalit bi dafay jóge ci formu solide bi dem nekk ci air dépolluer nit ñi di dugg suñu biir dënn bi c'est-à-dire est-ce que am na cohérence yow tey ngay jël mbalit di ko tibb di dem di ko yóbbaat di ko taalaat lool ñu ñuy taalaat saxaar boobu di duggaat si biir askan bi ñuy dugg di ko inhaler donc bu ñu ñëwee dañuy naan ay dañuy nettoyer balaa ngay nettoyer nga fexe ba mëbës bañ a doon décharge donc am na li ñuy wax sànq ba tey mooy priorité gis nga il faut que askan bi maanaam askan bi état yu Sénégal xam la mooy priorité benn lu may déranger rek ci kàddu monsieur le ministre mhm. mooy sànq ba tey day wax dëgg yàlla ñun bu ñu leen yërëmul yéen waroo leen ñu yërëm monsieur le ministre ñun ñoo leen di solal yére jox leen lekk jox leen maison de fonction di leen fay par weer. Mhm. donc soxlawuñu si yéen yërmande yéen vous êtes nos serviteurs dañ leen fa teg pour ngeen di jaamu soxlay askan bi mais par bu ngeen ñi naan yërmande yërmande yërmande Macky Sall am na yërmande mais Macky Sall yorul xaalis boppam tey boo jëndee dara dañ lay prélever xaalis boobu noonu nañ jël jox ko ko dénk ko ko dénk ko suñu avenir donc bu koy delloo si ñun du question de yërmande yàlla rek nañu xaar ci moom yërmande mais Macky Sall moom wax dëgg yàlla lu ñuy xaar ci moom mooy li nga xamante ne da ko diggawoon askan bi waxul woon fal leen ma yërëm leen de dafa fal leen ma liggéeyal leen fal leen ma liggéeyal leen ndax lu ñuy xaar ci moom mooy li mu liggéeyal yu te liggéey bi lii kii di wax escroc yi ñuy wax escroc yooyu noonu yu ndaw la mais escroc bu gën a mag bi mooy ki nga xamante ne day signé décret di jël li nga xamante ne mooy domaine national di ko ci domaine donc kooku tey ji moom moom nañu war a wax mooy le plus grand escroc mooy jël ay centaine d'hectares di ko jël di ko octroyer boppam wala mbokkam mi état du Sénégal ah incarné par Abdoulaye Wade Abdou Diouf ba Macky Sall donc bu ñu jëlee dinan naan ay autant d'hectares nan les retrouver entre les mains d'une mais c'est parce que hectares yooyu noonu Sénégalais yi nii nii nii même bu nekkee dañ nekk ci illégalité nekkuñ ci illégalité parce que foofu domaine domaine national la nekkoon état bi jël ko déclassifié ko def ko domaine domaine privé de l' état bu ko defee domaine privé de l' état si la koy joxee Oumar Faye parce que Oumar Faye li muy wax arrangé na ko wala si si la koy joxee monsieur ministre kooku bu jëlee jaay ko keneen fexe ba def ay démarches administratives ba am titre foncier mais boo yoree titre foncier boobu fan nga ko amee ak ci la jóge donc dañu ne les grands escrocs ñi wax mooy état du Sénégal ñoom ñoo nekk di tooñ mais askan bi nga xamante dañuy dëkk fi nga xamante dañuy war a dëkk ñoom tooñuñu kenn donc pour wax rek lii nga xamante ne mooy lu mujj li sujet bii nii euh, Dumburu Sow mii violence yi ñi ñuy xamante dañ koy dund Macky Sall si boppam moo ko waroon njëkk condamné parce que Macky Sall quoi qu'on puisse dire il n'a jamais été violent benn jour nañu mën a wax nii wala benn yoon nañu mën a wax ni wax na loo xamante mën nañ ko jàppee ay ay ay ay ay ay euh, benn discours belliqueux moo ba muy naan nañ dem déloger président Abdoulaye Wade mais Macky saal ba nga nekkee opposant nangu woo di wax wax joo xamante ni wax ji dafa dëgër léegi yow ngay accepter ay ministre wala ay député nga leen di protéger au nom de quoi ñi nga xamante ni ñoo waroon représenté askan bi bu nekkee nag ñooñu nañu tey jii ñoo assemblée nationale bi ñu am mu am ñoo xamante ne ay faussaires nañu am ñoo xamante ne dañuy wax apologie du crime mais ban assemblée nañu am est-ce que ces gens là est-ce que tey jii jëli woon xalif xalifa euh, Sall levé immunité parlementaire alors que mi ngi nekkoon ci biir prison bi ak kii nga xamante ne tey jii lii mu wax nii boo ko waxoon beneen dëkk mënoon na ko taal donc gravité moo yi man du ma ko du ko jëlee ak autant de légèreté bu ñuy naan wayu pël xaw ma lan ak lan lan loolu ci boppam mooy taal askan il faut que ñu moytu ethnicisme te ñi nga xamante ne ñooy dirigeants yi loolu constitution sax da koo tere ñooy dirigeants ñoo ko woon njëkk moytu c'est important Nene Aïcha Nene nga baal ma ma ma ma leeral rek dara. Pape maxtar bu ñuy wax solidarité de l'État wala yërmande Macky Sall du caagin ne dañ ko fay pour mu yërëm ñu loolu tamit da nga koy rappeler loolu principe la dafa am koo xam ne amul àq amul yelleef ci suufu jàmbur. dangaa am koo xamante ne parce que seen dëkk tamit li ngay wax nii développé nga lu philosophique waaye ci yoon ak lu concret dafa am nu ñu koy traduire dafa am droit de propriété droit de propriété mooy lan dafa am nit ku am titre moom ko. mais nan la ko amee mais dafa am la question du am na am na am na titre de xam nga euh, euh, titre de propriété mais na la ko amee. waaw xaaral ma wax la parce que ah, ñun dafa am lu suñu droit wax te wax ko ci dëkk yëpp boo demoon ci droit musulman lépp nit ki. domaine national mooy li ñëpp bokk. ku nekk mën na ñëw laaj délibération délibération droit d'usage la. Mhm. mais boo ko valoriser am nga droit laaj bail am nga droit laaj baay nga dem laaj bail bail location la bail c'est du c'est du c'est du français ancien qui veut dire location yow bu ñu la joxee bail ne la abal loué nañ lu suuf si bu la neexee nga tabax ci bu la neexee nga bay ci bu la neexee nga def ci à usage d'habitation à usage agricole à usage nangam ak nangam mais boo demee ba def ci yenn investissement loi wu Sénégal nee na am nga droit ñu defal la ci titre foncier. Sénégal xaaral wax la da nga wax daggu ma. Ah,